Nous, ñoo def fii def naka sudul nonu. ñaata chaque fois ngay dégg ay des lieux touristiques au Sénégal des contentieux entre des blancs et des noirs ci ay mariages divorcés ñiy bëgg ça jël samay bien ay tubaab di toroxal ay jeunes filles ici au Sénégal di leen prostituer di leen jaayloo au Sénégal à Mbour Sali, tout ça Cap tout ça. Hmm. mais pourquoi eux ils protègent pas euh, comme adresse euh, mais ils ont besoin de. mais est-ce que mus nous rapatrier. Euh, on a besoin de... seen nit ku xas ba egg Espagne bu leen signer une convention de rapatriement Moi, je suis pas d'accord avec l'État du Sénégal wax ma ni que dañ ko mais toutefois buñ ko signez, man je serai pas d'accord. accord. dégg naa sax ko du Sénégal ne doit pas signer une convention de rapatriement de ces jeunes là. il y a une loi sur la migration C'est légal Manam peut-être mën nañ ko ñaawlu le fait que ñu jël ay gaal dem fa parce que loolu sank sen sen bop sen bakan nit warul jël gal di dem ci géej di dem Espagne mais su xasee ba egg ak coono bu mu da ci yone bi nga ne da koy rapatrier. Mm. pourquoi. mais ñoo moo ñu bari di suicide mais il y a une loi sur la migration au niveau des droits de l'homme nañu dem fofu consulter ces ces droits de l'homme là la personne a une un droit de migration ñom ñoo mayul balaa ñu éradiquer loolu xam nga chaque fois na la le mal est profond les lois les jeunes là qui prennent les les les les les pirogues là. c'est vrai ñu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem mais. La question ne se trouve pas là-bas. Hmm. ñom Ils bottent en tous les causes. La cause, l'ambassade de France. Il y a des jeunes qui ont déposer ay demandes de visa chaque année. Il y a des parfois dañuy Parfois, mais ñaata c'est une femme, nous avons dit les jeunes payent plus de 100 000 francs voilà 100 000 francs. Même si nous avons le visa, nous avons des lois sans halis. C'est quand même la fin de mais 150 000 francs. Mais le là 50 000 bisis. Entre autres, où est l'état du Sénégal dans tout ça Où est l'état du Sénégal dans tout ça bien beau, Denis. Oui, le président de la République, oui, il veut tout ça, que les FDS, tout ça, pour nous surveiller les côtes, tout ça. Amassé bien beau. Mais nous, nous avons le meilleur visa franchement où est l'État du Sénégal dans tout ça. les voilà les questions dont on doit euh, débattre pour éviter la migration par pirogue. les de agence de ambassade encore ambassade vous que un jeune sénégalais visa. delloo ko xaalisam plus euh, euh, passeport am boo koy delloo passeport am balaa ñoo jël gaal gi si ambassade yi ñoom. ci ambassade yi la ñuy njëkkee pendant dix ans la ñuy njëkkee. question de il dit la cause. de ces de par mm, pirogue. Mm, mm, xalé yi buñu démé ba jël c'est parce que dañu seuss té légui ku djuk dañu seuss dañu ñaana ñaana ñaana ñaan ci ambassade yi ba non seulement jël mais les ku agence de voyage ku djuk agence agence agence d'autres d'autres xam amuñu ben link ak la France mais tëj sen agence diko commercialiser à travers le net xayris dugal sen xaalis étant am agence di len suturé xaalis budul jeex ba paré duñu am visa non seulement da ngay fay agence ba paré dem fay ambassade man l'ambassade de France que j'indexe hein, les cent cinquante bu ñuy jël ci jeunes ba paré di len may visa sur 100, cent jeunes sur 1000 jeunes sur 1000 jeunes 15 jeunes 15 jeunes ay visa imaginez combien d'argent qu'il a empoché l'état du Sénégal pourquoi waxul ci loolu. mais n'est nekkee étudiant Pourquoi sax pourquoi waxuñu ci loolu. bay signé ay convention waxuma dañ ko signé moi je suis pas d'accord Il ñuy signé ay convention de rapatriement des jeunes. c'est clair état du Sénégal il na ko bañ comme yeneen dëkk yi lu ñuy bañee. alors c'est clair dafa avoir a bañ ne Espagne hey mon droit rapatrier un jeune sénégalais parce qu'il y a une loi sur la migration. le droit de migrer. peut-être euh, il droit euh, peut-être il y a des choses qui cachent derrière tout ça. alors c'est ils ont encaissé peut-être euh, ah, voilà ah, ah. voilà il y a des choses il choses qu'il ne dit pas. grave alors. il y a des choses qu'il ne dit pas même moi je suis pas d'accord pour cette migration Nous rapatrier ay jeunes. Si nous ne ba egg nañ protéger ils ont cette ils ont ce droit là. comme européens nous avons le droit dom doom soxlawuñu visa ay yoma yu leen nexé dañuy ñëw def lu leen nex en Afrique ba paré delu sen deuk pourquoi ñun mënuñu am opportunité bobu pourquoi les jeunes africains mënuñu am opportunité bobu il faut ñu jël suñu courage à deux. voilà franchement. non quand euh, même parce que le débat n'est pas là-bas ah, quand même. Ah, le débat c'est d'aller dire la vérité à ces ambassades là il eh, faut aller dire la vérité. Ah. à quoi sert la diplomatie sénégalaise Chaque jour, le ministre des Sénégalais de l'extérieur, le ministre des Affaires étrangères. À quoi sert cette diplomatie-là mm-hmm. S'il ne peut pas renégocier aussi cette diplomatie-là, si pourquoi nous, on ne peut pas aller voyager tranquillement dans ces pays-là Nous, anam ñuy ñu am mais nous, comment adresse, ñu améliorer ñun suñu suñu suñu ci hmm. suñu demande de visa bi. ok c'est clair. ñu am améliorer suñu condition de demande de visa si ces ambassades là bu fekkee sénégalais mënoo am am euh, visa nañ la délo sa xaalis. c'est le minimum def nak 30 minutes alors dali dali c'est le témoin quotidien mu radiqué exactement le témoin ak euh, annulation de la dissolution de passif et inscription de Sonko sur les listes électorales la cour de la CEDEAO tranche le 17 novembre ma nak jëm si ñett requêtes yi nga xam Ousmane Sonko déposé na ko fa nga xam itam zaanu ko CEDEAO dina ko daal di àtte fukki fan ak ñaar sur novembre atub 2023 ma nak le cour euh, la cour mi ngi accepté nak ki nga xamné que Modi Juan Branco euh, waaye itam dafa daal di récuser ki nga xamné que Modi di maître Larifou Saïd des Comores que ni mo bindul si li nga xam ne baro bi jàpp itam euh, la demande de renvoi de l'AGE et des avocats de l'État rejeté gannaaw avocat état demande daal di demandé woon benn euh, ajan yi da que moo rejeté libération mu daal di exactement fuite de la lettre sur l'état de santé d'Ousmane Sonko jàppale ni itam ñaari doomu aadama teg le loxo fa nga xam administration pénitentiaire bu euh, bokk na si ki nga xam que modi euh, inspecteur administration pénitentiaire Idrissa Sow nak mi ngi garde à vue ak aussi euh, ñeen ak ñeneen ñi nga xamni tam tek ne len loxo fa la Fleur mujj nañ ko daal di dem démb dañ ko daal atti euh, un mois yo xamni tam fukki fan la si daal di tëdd fukki fan teud nako ko pale war fukki jom mu daal di exactement ak exclusion de Sonko de la course présidentielle le pouvoir joue la montre exactement ma nak li nga xam que modi bëgg génne bi nga xamni tam bëgg ne ko daal di ci élection présidentielle 2024 jël na pouvoir lu nek pour mu daal si koy euh, demani les échos mu daal exactement les échos ak li nga xam nekk attitude du roi des arènes lors du euh, combat mm, les révélations explosives du conseil de modlo euh, ki nga xam modi moo Yaram Gueye japp na ni mm, Ama Baldé dafa daal di dafa dafa dafa daal di demo bi nga xamni taw tam moo ci kaw ki nga xam nekk moo di Modou ki nga xam nekk moo di Modou Lo bëggoon couteau ki nga xam nekk Ama Baldé en tout cas modlo

mu daal jàpp ni Ama Baldé dafa yag merlo Modou moral euh, moo di koy def lu ñu mel ci euh, li nga xam modi combat bi exactement mais je pense que aussi euh, c'était était li nga xam nekk modi peut être pour neexaloon combat bi et que au finish gis na ñom ñaan ni lonko à fond. ouais combat bi dafa war a neex. Mm. d' mm. parce que li moy le charme de de de de cette arène nationale. de de de comment de la lutte sénégalaise parce que lolu ci bi la bok suñu coosaan la moy mm. manam euh bala combat. combat bi mu am ay jàkkaarloo loolu xam xanaa loolu mooy mooy mooy mooy andi attraction bi ci combat bi mooy mm. maanaam loolu mooy andi les débats sur la rue les débats sur euh, les débats sur euh, des débats de terre tout ça woy Modou Lo wax na lii Ama Ama Balde delloo na li suma ay cinq minutes ça do mat dina la dan dina la dor ba nga tout ça euh, le charme de la lutte sénégalaise. moy mm. manam nit meun nako ci euh, comment ay ba pare du ko nga mm. combat bi le jour du combat c'est tout autre chose. Mm. Euh, donc mon bu que. peut-être eh, dafa yeew benn démon bu nekk ci buy nelaw ci ama kii di Modou Lo c'est normal. Mm. Modou Lo euh, dafa dafa war a yeew parce que moom tamit dafa soxla daan. Mm. il est actuellement le roi des arènes. Ah, donc le roi des des des aussi foog euh, foog tamit nga constant. Mm. il faut que xam nga Modou ndeysaan. Euh, ak loo ko mënta bañal ayib mi ngi wax nga baal ayib mi ngi wax non mi ngi wax ayib. Euh, donc non euh, Modou Lo euh, laa bëgg ne. non ay non ay Modou Lo Serigne Fallou bëggul ma wax la mais jàmbaar nga jàmbaar nga même si du sama mbër mais il faut reconnaître que Modou jàmbaar la. voilà jàmbaar la foofu loolu laa bëgg a wax léegi mën nga dem si Ayib Daffé yaa xam. <laughs> mais Modou lii laa ko loolu lii laa laa bëgg nga ñu yeggee la ko ni jàmbaar nga. voilà ah da nga yaakaar ne du ma Modou Lo faral ma Modou Lo non yow Balla Gaye Balla Gaye nga faral Balla Gaye man Eumeu laa faral yow Balla Gaye mais man Modou dama hmm. dama nangu njàmbaar fam njàmbaar la euh, hmm. champion la hmm. voilà Modou booy bëri ak moom sax même boo koy daan da ngay xam ni waa ji de waa ji mbër la voilà hmm. moo du delloo quoi comme lu ñuy wax te dafay neexal combat. Euh, Alpha Ayib du saboté combat. Alpha Ayib mi ngi en direct. waaw nga xam ni itam moo di sa diwaanu. waaw jëlal Ayib. Euh, donc euh, Régie hmm, soo leen ko mënee dëttal en même temps Omar du côté de la Régie nous sommes en direct fana nga